yow te dégg ni dégguñu ma sax li may wax yow sociologue nga. yem. non yow moom. d'accord Aliou merci beaucoup avec une petite dose d'anthropologie. waaw d'accord te jànguloo d'accord yaa ngi yokk rek dina dem Aliou waaw merci ay affaire kii nii. waaw amoo ci dara. tey li ñuy wax yëpp mënul nekk. ñoom genn wàll li ñuy wax yëpp mënul nekk te mën naa expliquer mënul nekk bis koy defee non ñu ko man fi ma bëgg fi ma bëgg fi ma bëgg a ñëwee waaw may leen ayo ba ngeen déglu ko boo dama dégg Cheikh Bara muy waxee mel ni ñoom victoire Bassirou Diomaye Faye c'est dafa leer c'est déjà un acquis may ni ma koy ni ma koy arto noonu laay woowee sénégalais yëpp ñu vigilant parce que Amadou Ba euh, ku ko ku ko xamul rek moo koy xeeb mu ngeen gisee ni mu ñëwee ba nekk candidat Benno Bokk Yaakaar te ñu ëpp ci parti bi APR te ay responsable APR tamit yu bari mu doon ay militant te ñu war fàttali ci seen ci seen communiqué bi xoolal mbooloo mi. lii yaraaxul de lii yaraaxul de lii yaraaxul de Amadou Bala lii yaraaxul de. waaw baax na ñu fàttali ko ci seen ci seen communiqué bi rek. nii ñu bëri ànduñu ak. ah mbooloo mi léegi daal ba ma dem suba Louga nga xool. dégg ba xam mbooloo mi yaraaxul. d'accord ok nit ku mel noonu su demee ba. <laughs> su demee ba mel ni la lu contraindre dooley nguur googu ba ñu def ko candidat. Mhm. c'est pas quelqu'un à sous-estimer. Euh, te élection. Euh, campagne mun ngeen a mobiliser mun ngeen def lu leen ne mais élection ay électeurs ñoo koy gagné. Mhm. ay électeurs ñoo mooy ñi nga xamante ni ñoo am ñooy 7 millions virgule 3. Mhm. Euh, ñi am carte électeur nga xamante ni jour boobu ñooy yeew euh, dem ci bureau de vote yi pour pour pour pour voter. Mhm. ñooñu ñooy ñooñu ñooy ñooñu ñooy gagné élection. administration mooy organiser élection. administration bi. Euh, ñëpp xam nañ ni euh, tànk yi nga xamante ni ki nga xamante ni moo ko jiite administration électorale bi te mu doon directeur général des élections tànk yi mu taxawee ci durant collecte parrainage ñëpp xam nañ ni ay tànku péete la. Mhm. Euh, parce que décision de justice wàcc na fi ñaari yoon. Mhm. mu lànk ni du ko appliquer. Mhm. donc administration électorale boobu même bu fekkee dañoo fal ministre de l'intérieur bu bees ñu mën a am yaakaar neutralité ci moom ki nga xamante ni mooy directeur général des élections moom amuñu benn yaakaar ci moom. Euh, te nag fi may woowee sénégalais yi mooy le 24 mars ñu sécuriser vote bi sécuriser vote bi mooy bu ñu xëyee suba bureau de vote yi ñu fexe ba euh, vote bi jaar ci yoon ba ñu am benn sabotage ba ñu am benn euh, bourage des urnes te bu ñu yeggee ci dépouillement ba yëpp leer su ma nee yëpp leer mooy ñu bañ a couper internet d'abord Euh, parce que lu am importance la ci ci ci ci ci ci ci euh, jàlle bi ñuy jàlle résultats yi parce que gis nañ ni quand même le 31 juillet 2022 internet amoon na importance bu bari euh, ba 22 heures bi nit ñuy tëddi wala 23 heures sénégalais yëpp daanaka leeroon na ci seen bopp ni la coalition au pouvoir avait perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale du loolu internet moo tax ñu mën ko ba pare ñu veiller à ce que médias yi nga xamante ni ñooy diffuser te ñoo garder équilibre ba fi mu toll nii mooy Walfadjri ak Sud FM quand Euh, ñooñu ñu fexe ba ñu yombalal leen seen liggéey ba ñu mën a def seen liggéey ni mu waree. parce que mhm. man bu fekkee wax dëgg rek wax ca la euh, yeneen médias yi yaakaaru awma yaakaar ci ñoom euh, parce que ak lu ñu mënti wax am na lu ñu fi dund diggante régime bii nga xamante ni bi mu fi nekkee ba léegi am lu ñu fi dund ak ñoom te nag li nga xamante ni def nañ ko muy injustice yu bari teg ko ci bopp teg ko ci ay ndoddu sénégalais lu ci ëpp en complicité avec une grande partie des médias sénégalais lañ ko defee. Mhm. donc médias yooyu man aw ma benn confiance ci ñoom euh, te médias yi ma am confiance ci ñoom bëgg naa euh, vraiment balaa boobu ñu fexe ñu am ay moyens pour euh, def un maillage territorial. Mhm. ba mën na délivrer nit ñi. Mhm. résultats yi nga xamante ni mooy génnee ci urne yi. bokkut ak résultats yi nga xamante ni tendance yi nga xamante ni yeneen médias ñoo koy joxe te bëgg gëmloo nit ñi ni résultats yi moo moo moo war a am. foofu laay woo sénégalais yi j'espère aussi que euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk ci opposition bi préparé nañ vraiment jour scrutin boobu ba seen commission technique yi pare nañ ay mandataires ak ay représentants yu dooy ci bureau de vote yi. des parce que information yi ma jot ci tànn gi ñuy tànn ñi nga xamante ne ñooy siégé euh, doonul information yu dal xel parce que barki démb am na sama benn xarit pour ma jox information comme quoi ki dañ ko woo euh, préfet bi da ko woo ni ko. Euh, yow dégg naa euh, fanatique gu Sonko nga donc ren doo mën a gérer doo mën a doo mën a doo mën a siéger donc boo jotee ay information yu mel noonu day mel ni euh, du dal du dal xel trop mhm. moom tax may waat rek opposition bi mhm. que ñu vigilant ci ci ci li nga xamante ni moo des ci processus bi pour li ma de li des ci processus bi pour ñu am scrutin bu transparent mhm. scrutin démocratique weesu nañ ko mënatul am Sénégal élection démocratique moom amatul amatul Sénégal parce que chef de l'opposition bokkul Euh, loolu daal laa xam ni bëgg naa koo wax bu ñu naagoo euh, may prox ndoll tuuti rek ki nga xamante ni mooy candidat au pouvoir bi euh, mun na leen koo def au soir du 24 mars nañu vigilant sécuriser vote bi vraiment te fexe taux de participation bi mu weesu 60 pour cent. Mm-hmm. bu taux de participation bu weesee 60 pour cent moom au delà de 18 heures mun nañu waat ni nguur gi fi nguur gi fi nekk ak seen candidat. ñoom dee nañ. Mhm. Euh, mais nag bu taux de participation bi yéesee cinquante pour cent mën nañ am ballottage ba mën nañ am. Euh, un tour un mhm. tour mais bu taux de participation bi yeggee soixante pour cent nañ mën